mbokk yi waaw mbokk yi ñaari yoon mbaa ñett sax bokk ñu gis ni bokk am nañu ñu leen boole bu loola dañee mbokk ga day dañ su fekkee ay nit dañu bokk te la leen boole du dañ du jeex kon bokk ga day sax faw day gën a sax sax bokk ndey gën a sax bokk baay bokk gi ñu jeex ba faw mooy bokk diina moom soree du ko dindi gëjantee gis du ko dindi feebar bu tar mënu ca dara sukuraat mënu ca dara ñu suul la ñibbi du ko dindi dafa mel ni kon xaari diine dañuy wax dañuy ànd ak moom ci xuldu ba jëm fu amul àpp amul limite mooy nitub àjjana nitub àjjana ak àjjana ci boppam alxuraan nee na jànnaatu addin kër ya du rag garab ya du rax du rag ndox mi du ñiis jantam du so nitam du màgget du feebar du dee xéwal ya du dog jàmm ya du dogante ba kañ ba kañ ba kañ du kepp ba weer wi dee du ba at mi dee biit sax ba nit ki dee ndax dee amatul ñu bokk mbokk bu toll noonu nag seenu bokk moo wér te googu bokk lañu yàlla boole kuy demit bàyyi fi li ñu boole mbokk mi bu demee bàyyi la ko booleeg mbokkam ma fa des ba tax mbokk ga du tas ñu ngeen di nuyu ci kooku nu boole di lislaam di jaarale nuyoo bi nag ci baara bi ñuy askani bés bi moo ko wélaréen yi ma fi fekk ñuy xariti démb tey kilifa di ci boole njabootam ak képp koo xam ne gorolante naag moom moo xam dafa jël ci yow wala nga jël ci moom maa ngi lay jaarale ci loxoom nuyoo boobu mu jotalal ñu leen ko am na lu am solo ci saar wi ñu bëgg a waxtaani defe naa ca geen ba am na salaamun hiya am na salaamun hiya salaamun boobu xataa matlaxi fajri la fajri boobu bu fajar ji ñu dëkkmal fajari jooju mooy fajar ji mujj ci àddina ñu leen basañ gi ñuy wax suuf yi juróom-ñaar taxañ mbaar mi ñuy wax asamaan yaana yàgg na dëgër na waaye nag dañ ko fi indi suuf si la wax yàgg na torop yaa na torop matale na torop waaye dañ ko fi indi ki ko fi indi nag daf ko fi daf ko fi jële wa samawaatu matliyatun bi yaminihi subhanahu wa taala wax na fale yowma yunfiqu fi suuri fa shaiqa man fi samawaati wa man fi lardi ila man saa allahu ila man saa allahu ila an yasaa allahu nag moo ci tegu ila man saa allahu ila an yasaa allahu suma nufiqa fi uxra ila an yasaa allahu suma nufiqa fi uxra fa isaam xiyaamun yanduuna bés boo xamee ne góor gu tedd gi maam yàlla bëgg na nag film bi arrêté muy àddina ndax film rek la mu téye nawet téye noor téye juddu téye ëmb kenn dootul ëmb kenn dootul wësin kenn dootul bootu jant dootul fenk biddéew dootul feeñ weereexi nappi mu dal di sant géej gi mu ñiis ñu pasaraw ko taaw ko mu mel ni bàyyi waaw issu samsi kubirat jant bi lumière bi la ñu rocci bàyyi fi mburu mi dañoom dull nag talatu leer maanaam dull te boo tàlle sa loxo doo ko gis dañuy dindi lumière bi bàyyi fi xottu xottu weer fii mu mel ni lampe bu bulle sunu borom yebal ko ñuy wax sijil ne ko taxañal ma suuf si bokkal ma ko nit nit di taxaña basanam bu jógee bay dem wala buy dem te àggugul fi mu jëm arrêté yépp nag mu ngi xew ba si tam xarit tam xarit di dafay dajeel bésub àjjuma tam xarit yoo xam ne fukki fan ya àjjuma la dajeel ci la àdduna tukki mu ngi doon nag six heures ci ngoon du doon sept heures du doon huit heures six heures yi ngoon ci la yàllay tukkil àddina wan weer lay dajeel tam xarit bañ leen ci tamxarit fukki fan ni ñu koy defee nag du ñu dugg ci dëkk rëy nit ña génn dem ci kër gi rëy nit ñi dem ci réew mi la rëy nit ñëpp dem fi rëy mbaam yi dem fi rëy xar yi déedéet benn piton rek la ñuy laal ñëpp fay gis nga lamp yuy jóge Dakar def seen lii benn piton a koy fay si néeg ak sama néeg ak fayandoo mbindeef rek mu gëmul borom bi su amee xeen bu mel noonu mas yàlla te nasara li nga gis ak yaxut yi seen xam-xam yi ñu di naw yàlla leen ko joxoon ak condition ñu mën xam-xam bi trahir condition yi mu am ngor gu toll ni ba koog ñoom te di leen xaar bés waaw damay wax gaa yi ne leen man de wax dëgg yàlla yéen jafeñ na ma torop yéen bindeef ak jëfam rek jafeñ na ma torop aj naa ko foo xam ne nag ku fa aj sa bos balaa ngaa yéen gën a yéex dama ni ingénieur yu mën a jàng yii defar luy dem ci asamaan di defar lii nuur ci géej di defar bombe yu rëy yooyu ñuy wax fetal koy yebal te doo ca ànd yooyu yëpp duudu doy na waar waaye xam nga lu ma bëggoon lamb mii ci giw mi tey laaj te kenn mënu koo sempi dama bëggoon kenn ci ñoom ku naw boppam ñëw sempi ko kon ma naw ko lamb ji mooy kooku ñu wax dee muy tas kër yi dee moom muy tas kër yi di tàggale jabar yeeg jëkkër yi bàyyi yeeg doom yi soof lool ingénieur bu ci waxkat ne dafa xewu suñu dëkk moo tax waxul dëgg xew na fa da ci mënul dara ku ci wax ne yëguma ko waxul dëgg bàyyam deena mbaa yaayam amul benn bakkan bu ko bëgg nag góor gi sant ko fi ci maam Adama ba ilaa yawmil qiyaam ku ne mu digle ne dinaa la ko def te mënuloo làq ji fa tax fu tere mu def la ko innamaa takkuunu yudrikkumul mawtu walaw kuntum fii buruujin mushayyada daf kooku soof ba dee di tas këri nit ñi di yàq nelaw di dog mbégte di tax ñu jàttal doomi jàmbur ci bàyyi bu ko juru fekkoon lëf ci loxoy nit mu fexe keneen yor ko mu fekkoon commandement ci baat fexe keneen jël ko ku soof kooku laa ne ko am mën-mën nanu ko fi dégagé lakkal nañu torop moom dee ku ci mënul dara nag booye ba tekki sa ngeen rek te xam ne loo fi defit daa ci sa kaw la jëm si moom waa jooju déedéet keeta wax na dëgg nee na kenn déggagul benn dëkk buñ ne dee xew fa ma ne ko déedéet moom dëkk booy dugg di nga romba armeel ya doo faa dugg wala boo ko rombul booy génn romba armeel ya ñu sanc yi ku sanc baagal fa nga wutul ko place moom sanc koo dajal sax sa dégg neenu làkk déggante wu leen soo ko ne nii rek mu xam mu xam ci ko nii lu ñu sax boo leen néeg yi waaw kaw kaw amul fu mu àggul amul fu mu xewul léeg-léeg maa nga xale di tukki jaar ci dëkk yu sori wala ma ne ci avion jaar dëkk bu sori ci àll bu ruq bu tuuti ma ne ki ma dendal mbaa yëg ne ne dëkk bi malaaka nootu xam na fi mos na fi ñëw sax mos na fa gane sax foo nekk lu mu ruq ruq dina la fa fekk dale bañ la joxit doo ko passé yàlla nee na am naa ngor gu toll ni du ma avancé kenn du ma la jëppi ba wàññil la li ma la rëddaloon mais du ma kontaan ci yow it ma yokkal la fi sa ja ajaluha la yastaxiru saa wala yastaqdimun noonu la buur di mel lu ma xas war day continuer du soppeeku boo déggee mu naan fa bi ay hadiisin ba'dahu yu'minuun noonu lu ngeen dégg ci déglu jan wax ngeen di déglu su ngeen dégloo tey wax it du ngeen déggaat ko wax man maa waxoon te du ma waxaat li ma waxoon rek laa wax bi lislaam di door a xew kenn rek di julli muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata làkk la waxoon ne moom la ñuy julli suba waaw ba muy door a xew ñaata rakka lañ waxoon ne moom la ñuy julli suba ñaar mooy yi nga julli tey ci suba tisbaar nag lu mu ci waxoon ñeent lu mu waxoon ci or par at waaw kenn bi mu koy santaane kenn naa ko gëmoon bi ñëpp ñëwee tax na mu yokk ko impôt ba lu mu commencé woon ni ci tàng fu mu ne léegi waaw kañ mata dee ngo ku mag bu waxee rek li mu wax a yam ñàkk client li ma wax am ami client li ma wax am ñëpp nangu li ma wax fi laay yem ñëpp bañ ñu piis bu neex sax boo ko fi indi ñu xëccee ko nga indiwaat ñu xëccee ko boo dellu sa yokk ci seet waaw waaye ne ca nga ne wax rek ca maam Adama julli yi ñaar rek laa wax bu ñëpp nangoo ñaar bu ñëpp bañuy ñaar tisbaar ji noonu weeru koor wi wenn weer laa wax kooku boo gisee mu ne fa bi ay hadiisin ba'dahu yu'minuuna neex naa defanteelam ci lëndam la oote waaye ootewul ba ñëw yu mujj yàlloog nit ñi ñëw leen bañ ne bërëb mu ne poset déedéet def na fa tekk rek taxaw ku ak si fekk fu ko lamb daj ko waaw kenn du ko dëg mal yàlla kenn du ko dëg mal mu jox la gannaaw déedéet te ku àgg dugaale loo bëggoon ucc ci biti loo xe loo ragaloon ak loo siboon baar ñu ngi laa nuyu man laa jotal ku ko gëm baax na ku ko gëmul baax na man représenté laa ci côté bi ma nekk ci l'islam ku fi nekkoon présenté Abdou Diouf fii su ñëwee ci sa tante bii wax la lu Abdou wax danga koy déglu man ñi fi nekkal yàlla ci laa ku xa ku xam loolu looloo am ku xamul loolu looloo am ku réere loolu looloo am ku ko réere itam di nga ko xam ne bés waaw de ma di la jotal nag ngërëm ak ki moom lislaam yow baara yaag say bokk di la jotal ngërëm ak jaraafam jooyu ji ñuy wax rasulullah mët la yuuxu de waaw waaw bu dëgg ji bi am lu jub xama saxaar bi lu mu yuuxu man yuuxu loowu ma ko bu maa du sàll jël see ba ñuy toll ci koñ bi maa ngi ko naan dëgg dëgg duudu baara yàlla baaxe na ko bi ñu ñëw wax naa la ne dama noon damay noppalu ko parce que damay indoo piri mais li ma nekk sama néeg yëpp nelawuma wallaay maa ngi xalaat baaraat doxalinam ak passage ma ne duudu baara yàlla baaxe na ko kaar ndax léeg-léeg nga gis ku nëgat lu baax lool lool waaye yàlla joxu ko mën-mëni def ko am déet léeg-léeg nga gis ku am mën-mën lool lool waaye yàlla xiiru ko ci def lu baax léeg-léeg nga gis ku am mën-mën yàlla xiir ko ci mais dogalul mu sotti kon bu la joxee mën-mën kaar yàlla na yokku fiir la ci lu baax yàlla na ko nangu dogal ko am na lu mu la defal guddi waaw wallaay rawaan guddi tey gi rek doy na ko jaamu yàlla te bu ñu duggee ci guddi gi balaa teer ngeen xam loolu néew na sax may dem ci tànt di yor téere torop torop waaye daaw bi ma fi ñëw indiwaale woon naa téere ren maa ngi indiwaale téere kii saraa alquran la kii roxul bayaan la tudd du kaamil bi tuuti tuuti kii borom liggéey na ko ba fukki xaaj la xaaj bu ci nekk di ñetti xaaj muy fanweeri xaaj tey bind bee raw moo mag suma juddu mag juddu yi ñu ma jur parce que ay koom-koom daf ci nekk yu jegeñ yoo xam ne soo ko waxee borom xel mu gàtt iblis mën na ko liggéey ba du ko gëm te loo gëmul du la jëriñ déedéet balaa ngaa jëriñu ci lëf gëm ko loo gëmul du la jëriñ mukk loo gëm lu mu doon nag yàlla mën na caa def sa njariñ dafa am sëriñ bu baax boo amoon taalibin taalibe bi sonnal ko toor ci di ko laaj turu yàlla sëriñ bi di ko dikk rek waa ji def ko dëgër bopp te koo bàyyi rek sëriñ bi di jéem na mu ko mën a gàntoo ci ci ci ci maslaha waa ji di ko laaj rek tur wi di ko laaj tur wi ba sëriñ bi ne ko bés dëgg dëgg kontaan naa ci yow te li may laaj ci yàgg na kaay ma wax la turu yàlla wi gën a fort ci turu yàlla wi gis nga ëkk gële ëkk ga mooy garab mooy garab gu dee ci ëpp googu gële tur yàlla yi ma lay jox ci nga koy xamee damay bàcc ko rek bàccul tur bi rek bu fekkee ne yàlla nangul na la garab gi dina daal di jébbiwaat tóntooraat meññaat
waa jaa ngi dem gëm sëriñ bi gëm ko lool benn mu ko wax rek mu laal ne rek looloo mu naan masalan mu ne ko soo demee dee sikkar fekk li may wax siiwul foofa ci ni mu siiwee fii am na weneen tur foofa te woowa it la ko wax soo jullee suba dee la wax pomme de terre pataas pomme de terre pataas pomme de terre pataas pomme de terre pataas boo ci def juróom-ñaar fukk suba di ko def juróom-ñaar fukk ngoon waaja dem ca ëkk ga wéeru jublu penku di wax ñaari xeeti lëjum yooyu ma waxoon pomme de terre pataas pomme de terre pataas di xool kuris gi ba muy juróom-ñaar fukk wàcc bu ngoonee mu def ko benn yooyu rek mu dem ba am ñaar fukk ak juróom garab gi jébbi bu muy àggal mu tontóor bu muy tëj doom yi ñor rot mu ñëw ne sëriñ bi c'est que sëriñ bi kat daf ko doon waaw kañ daf ko doon kiis loo rek dafa bëggoon rek mu tàggoog moom rek parce que sonnal na ko waaw kañ mu ñëw ne sëriñ bi day tur wa dugg na mu ne ko na mu dugge mu ne ko kañ dem sëriñ bi ñoom fekk garab gaa ngi meññ door di tuuru sëñ bi na ah ndekete man dama ñàkk fay te ndekk yow turu réew wàññi daal di këraloo ci ngoon jël pomme de terre pataas di fajar di xar garab gi ruus wow kon delluwaat di ëkk loo tax mu ñor ca kële dafa gëmoon liñ ko wax kii di ko sikkaru óoroon na ko ne lool du dara ndette ko ci dal mu bëgg cay jéem a defaru moo tax munu caa defar loo gëm lu mu doon rek yàlla fekk sëriñ sa gëm sëriñ yomb na taalibee jafe ginnaaw gi ci sa kër sax soo ko defee sëriñ te doy loo ko loo ko laaj rek yàlla defal la boo gisee diine yi tasaaroo teew bàyyi kenn ku ne sa yàlla yaa ngi cay defar fa am ndaw su am ndaw su ay kilifaam notoon may ko ku ñu bëggul sañ la bañ waaye mu di sey di fexe lu yóbbu jëkkër ji àllaaxira di ko jëy doon sëy nag sëñ bi di ko nax rek ba am bés mu ñëw soon na sëriñ bi sëriñ bi tànk ci ndaali sikkarul bindul lay-laayul ne ko ndox si daal boo fexe ba mu naan ko bu soobee yàlla yonente ba dina génn àddina ndoxam neen la ndaw su yóbbu ko di togg reer def ko ci góor gi reer ko dee dee def ko góor ngëm dafa am solo sikki saaka sax soo gisee ñu ne boo sikki saaka amatoo njàpp sikki saaka dafa baaxul fokk da ngay gëm yaqinan imaanan mu nekk itiqaadan itiqaad boo xam ne raasiq lay doon am na baaju baax a baax a baax a baax ci ñu topp ci ñu topp nabi la ñu di ko wax taabi taabiin ñu di ko wax Zuhd ibn Jubayr mujjug dundug njool màkk ñi la defoon ci saaba yi dañ def ay clan ñii farat bani saybata ñii farat bani ummiyata lu jur loolu ci deewug Ousmane la loolu amee sina Ousmane waru koor lañ ko rey dinañ ci passé sax rey ga dañ ci tuumaat si dina Aliou karamallahu wajhu ndax booba dafa mel ni bu Ousmane dégagé Aliou war a toog ñu bokk Ousmane yëpp def face si dina Aliou karamallahu wajhu ñu daldi ñu daldi tuumaalante fekk yenent bi ku ne ci ñoom bi muy dund wax na la sa pas-pas ak fi ngay mujj mos naa war mbaamam di dem ñeenti saabu yi wëru ko mu dox ba mu yàgg mu ne ak a neexoon ak a neexoon ma xam kan ci yéen ñeenti ñii ci ayam ci la deret ju bari du tuuru ci diggante jullit ak moroom ma te yërmandeeg bëggu mbokk ku ko yóbbu ak a neexoon ma xam kan la ci yéen si Abubakar ne ko mbaa du man mu ne ko sori na la Omar dogale ko sina Omar dogale ko téye mbaam mi ne ko mbaam mi kat du fi jóg te waxu la ma ndax man la ne bi ne ko Omar bàyyi sama mbaam du yow sina Ousmane ñëw ne ko mbaa du man ne bi jooy na ko la ko ne mbaa du man rek yonti yàlla Muhammad jooy Ousmane jooy mu xam ne mbir mi ci kawam lay tombe Rasul dem ci dal bi Bakrin toog Omar toog Ousmane toog am benn bajonom bi ñuy wax Mirwan ibn Akam mu def ko premier ministre wala secrétaire général boo xam ne moo yor gouvernement bi yépp am na dëkk bu ñuy wax Misra mu ngi xaw a demee ni Kaolack ci Sénégal wala mu demee ni Ndar wala mu demee ni capitale bu mag gouverneur fay nekk ñu samp ko fa ñu samp ko ko ñu wax Omar ibn Ash Omar Ibn Waas nag doom doomu bàjje ni secrétaire bi la ki nga xam ne moo yor moo yor moo yor gouvernement bi yëpp ministère d'état bi fës ci Ousmane ñu di ko wax Mirwan ibn Akam baayam ak ndeyam Ousmane bokk ndey baay moo yor casier bi moo yor moo yor enquête yi moo yor giléemi service yi moo yor yëpp waa ji la ñu fal nag mbokkam la waa ji nag bi mbokkam la da ciy teg tànkam waa ji nekk ñoom noonu nekk ñoom noonu di def njaaxum yoo xam ne su timis passé mooy imaamu ratib bi mooy buuru jullit mais ci bistro yi lay fanaan maan di rek benn timis mu yàkkamte jant fa naan ba màndi waxtu yu jot foog ñu julli si ñu ñëw di julli indiwaale màndi tin juróom benn rakk la julli wallahi ni ma rey ñu rey Ousmane laa lay wax loo rey ñu tuumaati si naa lii ba yëf yi continue continue di yàq di yàq ba ñu am laylatul qadri laylatul qadri gouvernement bi génn na ci waa kër rasulullah yi te bi ci benn umul yata laylatul qadri laylatul xadri yi xam nga ñaata la juróom ñetti fukki at la ak ñett ak ñeenti weer yéen ñu jàng tubaab bu ngeen demee ngeen calcul junne weer weer wu ne di trente jours daf lay jox juróom ñetti fukki at ak ñett ak ñeenti weer loolu nit dund na ba tey te dund la ko génn guddi gu ko gën nag mooy suñu guddi gi ñu toog tey waaw diiru li benn umiyata yor l'islam mu ngi toll ni laylatul qadri laylatul qadri mooy genn wàllu nguuru Suleymaan ak genn wàllu nguuru Buxtu Nasra Buxtu Nasra moom mooy juróomi juróomi juróomi téeméer juróomi téeméer weer la yor addina Souleymane yor na ko juróomi téeméeri weer ñaari juróomi téeméeri weer junney weer la seen ñaari nguur googu ak lañ ci def yëpp génn guddi gi yëpp gën ak bu ñu foofu nag mais ñun ci waa ji Omar ibn Ash ñu julli timis julli juróom benn rakk ñàkk lu muy wax seulement naan leen su deewul ma delli ah ñii wax maari de taal yàlla nattu ko mu daal ne caa tiisu sàngara ca palaasu ilimaan ci koo xam ne li bu yàgg ba tey ñu ngi fexe li la fi jëli su ñëwee rek xale bi nëpp nëppay dossier bi ah gars yi nag ne ah bi yoon na kat mag ñuy jub ñu koy def délégation ñu Muudu Gëy ñoom Dudu Ketta boole koog ko demee Yuusu Mbargaan mag ñi ne leen na ngeen dem gisi waa ji nag gis leen nag gis leen nag gis leen nag gis leen nag président nag yu ëpp na nag lii fës na ñu gisee financement comme boobu moo fa nekk ñu gis ko ne ko ah te ngi kat yemee nañu délégation bu am solo recevoir leen waxtaan ak ñoom ñu nettali ko nag li xew ca Tëngéej li xew ci gouverneur ak la mu defoon ca Tëngéej ñoom nag dañ doon jëfante pire daawuñu ñëblante ñu ngi laa yëgal ne li yàlla yónni woon yónnante bi ñu téye ko ba mu dem bàyyi koog Omar Omar di dem ba ci koog yow mu ngi ci say loxo ak ayibam du doon loo mën a defal ci yàlla na nga seet keneen yëgal ko fa te kat ñu laa yëgal lu tuuti ñu nga bëgg a wax ne point bu am doole lëf bu ko jaasi daan joxe bu ñu mujjee di ko wax ci làmmiñ warula jafeñ